téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. mbokki internet yi ñu ngi leen di zaarewaat bu baax a baax a baax euh, beneen fait de l'actualité de la semaine bokk na ci également lu soxal euh, assemblée la ñuy des ba tey pencum ndaw réew mi di leen fàttali ngeen bës cloche bi mën a abonné bokk ci ñi nga xamante di ngeen jot vous allez recevoir toutes nos informations. Euh, en temps réel ak euh, national ak international surtout mais également tey nous restons également toujours euh, dans l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale avec ce qui s'est passé ces incidents qu'on a eu à noter ce matin malheureusement cela donne l'image de notre assemblée bi ñu am <clears throat> cette treizième législature qui n'honore pas la la la dignité humaine qui n'honore pas une institution digne de son nom qui n'honore pas également la une vitrine démocratique euh, euh, vraiment boo xamante ni pour un pays qui se respecte et qui se veut démocratique et qui se veut développer moom la war a doxee. voilà malheureusement gis nañ fa xeex bu am ci au Ousmane Sonko ak euh, Mbéri Silla un député de la majorité gis nañ fa également xeex bu am ci un autre député de la majorité Aliou Dembourou Sow également ak euh, Toussaint Manga. Euh, bu parti démocratique sénégalais euh, di di bokk ci euh, groupe liberté démocratie mu nekk loo xamante ni vraiment gàcce la ci suñu réew. gàcce la ndax assemblée nationale buñ ko taxawalee c'est juste pour que mu nekk barab ba ñuy pencoo ko waxtaanee ko na sa ko nocci li dox ci yitteew askan wi. assemblée amagul benn acte bu ñu posé ko cette treizième législature bu mën a sénégalais bi toog le sénégalais lambda bi bokk ci benn partie politique toog tàccu ne ah ay la yéwén lii am na solo si ñun am na njeexantal moo tax assemblée nationale bi da nga koy xool sa xel dem ci arène nationale est-ce que sax mënuñ koo tuddee changer tour yi changer ko de tuddee ko arène nationale arène nationale sax ñaar doo nga fay xeex ci jëte géew ba la te xeex ba ñuy xeex xeex bu légitime la boo xam ne dañ ko réglementé mais malheureusement ay nit yu ne yee ay ndaw lañ député moo tax titre boobu man damay yaram day daw moo tax ñoom Lamine Gueye bu ñu dekk waatoon seen yaram daw Léopold Sédar Senghor bu ñu waatoon yaramam daw gis nga des des hommes de valeur yoo xamante nii dañu xamoon lan mooy institution lan mooy bànqaasu réew ñii nii xamuñ ci tous ay taxaw naan ay yor naa jaasi yor naa nangam Aliou muru Sow je le nomme bien pourquoi cet homme la Macky Sall du ko arrêté dégg nañ fi ay propos yu mu génne woon di wax ay waxu ay wax yu bon yoo xamante ni c'était des propos qui peuvent quand même brûler tout un pays ñu bàyyi ko muy daakoo nu mu ko neexee moo tax man souvent damay yërëm président Macky Sall y a des hommes qui ne le euh, le rendent pas service qui ne lui rendent pas service autant pour moi am na ñoo xamante ni koppar yi ñu amee ci président de la République ak ndombal tànk la ñu am dañu mel luñ ko gëmewul parce que malheureusement politique Sénégal moo tëddee noonu maanaam dañ koy politique ngir dund jànguñu xamuñu tous amuñu benn fonction liggéeyuñ loolu tabbu bañ leen tabbu député moo mën a tax ñu mën a am koppar tabaxi kër di ko loué di rey askan bi ñuy fay location yu dul jeex askan bi sonn bay bëgg a dee ñu ne faax di tëdd ci hôtel di noos ndax lan amuñu benn xam-xam bu dul politique du ñu tekki loolu moo war a jeex Sénégal système bi ñu naan dañ koy changer il faut qu'on change de système man damay am yaram buy daw sama xol day jeex su ma gisee vraiment comportement yi nga xam ne am na assemblée nationale arène national laay wax sax maa ngi jégalu ci kàddu gi am na arène nationale. parce que fu ñuy xeex ak kurpañante parce que Ousmane Sonko pas pour le dire boo waxee ñu ne da nga ko faral man ñoom ñëpp Ousmane bokkuma benn parti politique sama yoon nekku ci ñoom je suis un citoyen sénégalais un journaliste qui fait ses analyses mais ça aussi qu'on se dise la vérité assemblée nationale du tribunal du tribunal ba tey ji Ousmane Sonko ñi koy provoqué di ko tooñ parce que ni mu waxee mooy que yàgg nañ di ko jox ci loolu ku la attaqué physiquement nga fay physiquement qu'on se dise la vérité même bu dul même bu fekkente ni on on on on on on euh, euh, favoriser quand même euh, kenn nangul violence kenn apprécier wu violence mais si trop c'est trop wax dëgg nit ki bu dee wax ak yow ay propos naam man nga na Ousmane Sonko ne yàgg nañ ko wax mu noppi mais ku la attaqué physiquement nga fay physiquement gis nañ ko ci Toussaint Manga ak Aliou Dembourou Sow mais il faut sa il faut que ça ça cesse assemblée nationale jox leen ko gëddaam ñu leen sinon ñu tas ko bu dee dañ leen di fay suñu xaalis suñuy impôt jox leen carburant jox leen oto jox leen lu nekk ay privilège ngeen taal seen oto yu neex climatisé dem ci hôtel yi tëdd te liggéeyu leen tous ci réew mi di xeex ko xuloo mais tas leen assemblée nationale moo tax président Macky Sall ku ko gën a am yitte ku ko gën a mën a am soxla gisuma ko parce que vraiment ñu koy tiitaroo nii bu waree dem seen dëkk ñu jiitu fa daaw at ba at lañ fay dem wala bu ñu fa demee politique daa jot ñu dem fa ratisser takk foofu fu la fay ay booy ah président kay sant nañ la gërëm parce que da ngeen ko sant président moo tax ngeen tekki bu doon def président du ngeen lekk du ngeen naan amu leen benn xam-xam du ngeen liggéey du ngeen ay parce que politique mooy seen liggéey moo xam ku jëgi moo xam pouvoir bi politique la ñu war a bàyyi def ko métier on doit la politique pour servir un